bi bikum fukki miliyoŋu doomu aadama ak juróom-ñett ñoo yeewoo ci réewum Sénégal allah léesi ko yéen a kaay moo ñu ko xamal fañ doon xayma sénégalais yi ñaata lañ Dakar Presse yéen a na ko dix-huit lañ mooy limu sénégalais yi jigéen ñi lañ góor ñi quarante ko yéen a kaay na ko faala ci yokkal département bu Mbàkke moo ëpp la ay nit doomu aadama ci Sénégal Dakar Presse na ko li nga waxee dëgg waaye faale wax ñaata nit fa nekk un million 2017 le quotidien yéen a kaay ne waaye faam ñu doon wax naan jigéen ñi ñoo ëpp góor ñi waaye bi ñu xaymaa bu ngeen seetloo bu baax presque góor ñi fi mu ñoo ëpp jigéen ñi leer nen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne Sénat joxe neen seen dogalu àtte te mooy fa ñoo wax waa DGE na leen jox leen Ousmane Sonko ay fiche parrainage am ca nam gën a gaawee nag looloy dëgg waaye loolu ngeen di def noonu du dëgg du yoon Vox Populi moo ñu ko xamal yaw seetal waa DGE yi ñoom it fa tontu waa Sénat na leen ko tey ak laa wax si du quotidien ne waaye yéen xam nga ne DGE fa ñuy défier fi mu nii waa Sénat maanaam faale wuñu leen lu ñu neex la def laa si ne kaay ne DGE fa bañ ba tëdd ca naaj wa ne du jëfee li ko waa Sénat sant te mooy jox fiche yi pare naa si Sonko libération na kon fi mu ne ñàkkante bara de moo xam ci seen diggante enquête yi kaay dëggal ko ne Sonko mi génnee ci liste électorale bi coow li ba léegi pënd bi wuréegut ñàkkante e e a locales yi réew mi yéen a kaay ne yëf jur na werante wu rëy njaay xam-xam màcc ci wote ci Sud Quotidien fa wax ne li xel nangu te normal mooy Sénat mii sëkkatal DGE ngir mu joxe fiche yi Njaga Silla moom xam-xam màcc ci wote ne lii fa ruuslu fa ñaaw gàcca la buñ demee ba nga xam ne suñu administration bi fa ñuy foyee di ñàkk jëfee kuréel goo xam ne fay saytu doxalinu wote muy Sénat santaane na ko ñu bañ koo def loolu fa garaaw tu dëgg e a a bokk 2024 yi rek la ba tax ca info yéen kaay moom Alintine fa génnee Candele Fall ma jiite DGE ña ko yow moom laa disqualifié ndax lii ngeen def nii du dëgg du yoon suñ démocratie warta mën a deltu ginnaaw ba ab administration di bañ jëfee dogalu attekat di ab juge muy sàba si fay ñu ne déetuwaay ñu bañ jëfee tamit ndigalu Sénat enquête yéen kaay ne waaye fa xam na ñuy rumbandaat ne code électoral bi may na Sénat mu tëb DGE jël fiche yi joxe joxe seen dogalu àtte diggante Ousmane Sonko ak état bu bés bi yéen a kaay ko xamal laas yéen a kaay na ko faala ci yokkal procès Ousmane Sonko boobu ca CEDEAO àttekat ba fa dugg avocat Ousmane Sonko bi ñuy wax Juan Branco tubaab ba fa ko wax na ko yow fa ngaa xamadi fa ngaa réew lool luubu nga def ndax nii ngay wax ak man Juan Branco na ko yow nag fa mel ni fa ngaa nekk ci pexe vraiment défendre sama client bi di Sonko te loolu du dëgg du yoon <laughs> leer a ko maître Oumar yu moo fa jaar mooy borom caajaay indépendant yi ne kaay na ko moom Amadou Ba nag woote na ngir ñu nekk benn mën a wéyal plan Sénégal émergent bi buñ jëlaatee réew mi li ni mel ma ko waxee ca Tiwaawoon ak Mbuur ba mu fay amal tournée économique am l'évidence yi ne kaay na ko faalam ci yokkal diiwaanu Tambacounda responsable ya féddali nañ seen ak jàppale ci Amadou Ba man ma bax Amadou Ba dem ca ña bax Malick bu lat menge dem fekk ji ma xam ay responsable yu bëri yu mag yoo xam ne ca mouvement Gueye fa lañ nekkoon waaye fa wan ginnaaw Malick Gueye amal meeting de ralliement dem fekk ji docteur Macoumba Diouf ba tax l'évidence yéen a kaay na docteur Macoumba Diouf daal fay suqi laa fi Malick Gueye ya maanaam ma ngay néewal doole mouvement am ba ñu seen doole yokk nag ci parrainage bi mooy waa gëm sa bopp Bougane Gueye Dany l'évidence yéen a kaay na ko mën da xaw ma ban pexe leen nas waaye terrain bi moom ñu ngi ci fees dell di ut ay parrain ña parrainé waa réewum Palestine jàppale ca réewum Palestine ñaawlu tamit bombarde bi réewum Israël di leen def ci tooñ jaay doole ñu bëri ci àdduna bi na mig di seetaan yaaw seetal fukki junne ak benn ci ay doomu aadama la Israël rayagum ca waa Palestine ya bokk na ca juróomi junne yoo xam ne ay soxna yu ñu ray lañ ak ñeenti junne xale yu ñu ray ñaar fukki junne ak benn ci ñu am ay gaañu-gaañu moo tax fañ koo ñaawlu wane seen ak jàppale ci Palestine comme ni ko Baye Niass daan defee ci dundam la mu def moom njiitëram Macky Sall mooy ñoŋal ab sonu économique spécial ca diiwaanu Diass Le Soleil yéene kaay liggéey yooyu nag njiit réew Macky Sall amal na lancement bi laas yéen kaay na ko lu ëpp fanweeri milliards la ca état ba fas yéen a dugal loolu lu baax la li baaxut nag ci doomu Sénégal yi duggoon ci gaal gi Barça mbaa yàlla def ñu dem ba yegg Espagne fi mu toll nu ñoom sénégalais yooyu nag fañ leen nar a dugalaat ci avion delloo si leen ci réew mi wal fa jir yéen kaay ne nguurug Sénégal moo ci amal déggoo ak nguurug Espagne source a yéen kaay ko yow xanaa fa ngaa yëgut ne avion bu bi ñëw na le 24 octobre bi te réew na am na yeneen avion yu bëri yu a ñëw fii Dakar delloo si leen info yéen kaay na njiit réew Macky Sall nag fa wax ndaw Sénégal gaal gi dem barsamba barsàq nekkul li gën toog leen ci réew mi l'observateur moom fa ñoo xamal ne lew na ña seen ka ñu waxoon ne góor jigéen la ba ñu suul ko fa xam mbooloo sulli ko daal di koy taxal ba mu lakk ba xëm coow la ba léegi pënd ba wuree gudde yaw seetal juróom-ñaari doomu aadama tegagum nañ leen ca loxo turbine yéen a kaay na ko bu ko wàññi ëpp na ko fukki doomu aadama la ak benn ñaari ponkal yoo xam ne ñoo jiite woon lakk ga kenn ka fa daw dem Gàmbi kenn ka fa daw dem Mali l'observateur na ko yu faa la ci yokkal ci ñi na ci koo ne ca Kaolack ma nga Gàmbi de te Interpol fañ koy lukkat ngir jàpp ko la mu jàpp ba wax ñu ko moom Vox Populi ak yéenekaay yu bari mooy xibaar bu tiis di génn àdduna faatu Papito Kara ah. yaaw seetal papito kara daal fa duggoon ci gaal yi doon dem barça espagne far mujj dem barsàq ndeysaan dakar presse yéen a kaay ne faatu gu doy waar ci géej gi libération ne gaal gam nekkoon ba faatu duut moom rek de am na yeneen juróomu ndaw ñoo xam ne ñoom it fa ñoo faatu waa grand place yéen kaay na papito kara ndaw la boo xam ne activiste la woon fa bëggoon réewam nekkoon bañkat bokkoon tamit ci mafia kacc-kacc abonné leen ci suñu chaîne youtube ngir jot saa réew